ah ndeysaan sa dëgg dëgg dëgg dëgg tey la dimanche tey la mille vingt et diggante Khalifa Daba Ndiaye ak Sira Diallo sama ñaari seeg yi temps si mbi ñu ngi ci làmb ji laay laa xila laa njëkk nanoo bëre Khalifa yaa Daba Ndiaye daal di daan Sira ñëw ni ko du yombee noonu damay jël sama revanche ci benn tàkkusaan ah ñoo ngay fàqantay baaram sëriñ tekk na benn gaw daal di la ilaha illallah siraan ko ko ci suuf bis bi damay fàttali kan digende Modou Lo ak Balla Gaye tàkkusaan uh-huh. boobu la dama ni ah sëriñ do rombe taxawat taxawaat dafa yaa dama ja taxawat na te bopam di deglu nak, sira mi ngi deggal bopam xamna da jil jël revanche combat bi combat bi da koy deglu ni nga sànni seen i taat sa combat bi dan ko conseil ni ko nga deglu bu yàqante combat bi dëgg neexul. te ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk yaa ngi sànni sa sa ginnaaw. waa Kébémer TV ñooy jël combat bi noonu. As Mbaye gaynde gu mag koy reporté. Abo Mbaye koor na way waaye daa soj. laay laa xelalaa. ndox mi ngi fax de ah laay laa xel jël la. plaqué ko bañ na. nooju na ko ruuru na. oh ndeysaan. bu yemoon fii sax neex na. combat dafa yaa dafa njee daanaat na tum sire